Bonjour, chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International. Bienvenue dans cette page de l'information. Assise de la justice vers la présentation des rapports des sous-commissions ce lundi. C'est aujourd'hui que les sous-commissions issues des deux grandes commissions qui existent vont présenter leurs rapports. Les rapports de ces sous-commissions feront l'objet de plénières avant la grande plénière des deux commission. Euh, c'est après que le rapport qui va être présenté le 17 juin prochain au de la République sera Comme informé lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a participé ce samedi 1er juin 2024 avec l'ensemble du gouvernement à la journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des forces armées et des services de l'État dans l'exécution des opérations retenues en privation gestion de l'hivernage. L'activiste Badiahaté et l'imam Cheikh Ahmad Tidjanda ont été relaxés purement et simplement du chef d'offense à une personne exerçant tout au parti des prérogatives du chef de l'État. des dès l'interpellation des deux mises en cause, le débat s'est vite posé sur la pertinence au nom du délit d'offense à une personne exerçant tout au parti des prérogatives du chef de l'État, une disposition de l'article l'article 254 du code pénal sénégalais. Au final, Badiahati et Imam Ndao ont tous les deux écopé de trois mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs de CFA division de fausses nouvelles. Des COAC sont notés dans l'acheminement des pèlerins sénégalais à la Mecque. Le ministre des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, estime qu'il y a eu défaillance du côté d'Air Sénégal. S'agissant de la compagnie aérienne nationale, Monsieur annonce des mesures qu'il faut pour redresser cette boîte et redorer l'image du Sénégal. À présent, parlons l'actualité en dehors de notre frontière. Abdoul Wahab étoile montante de la jeunesse sénégalaise pour sortant, a lancé ce samedi 1er juin l'Africa Green Connect à Casablanca. C'est à l'occasion de masterclass à l'hôtel Melibert sur thème portant sur l'impact du dérèglement climatique en Afrique qu'il a entamé le projet Africa Green Connect. Cependant, ce projet de Africa Green Connect prévoit d'autres de sensibilisation d'informations sur les techniques agricoles durables en Afrique. La prochaine rencontre sera à Abidjan. Et maintenant, terminons cette brève avec la page sportive.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 Restez toujours connectés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir.